asalaamaaleykum euh, chers internautes ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci Sénégal donc tey ñu ngi dalal euh, monsieur Omar Ba muy maire de la commune de Ndiob dans le département de Fatick donc moo nekk aussi ancien secrétaire permanent de l'AMS et président du conseil de surveillance de l'agence sénégalaise pour la reforestation et la de la et la grande muraille verte euh, monsieur Ba ñu ngi lay nuyu. maa leen di fay di leen ziar di rafetlu invitation bi bu baax. donc euh, sans plus tarder peut-être ñu dugg directement ci actualité bi xam naa ni yëngal euh, dégg nga waa Yewwi Askan Wi. Mhm. en tant que maire euh, en en tant que aussi ancien secrétaire permanent de l'AMS aussi donc naka nga apprécier seen sortie boobu noonu donc de Yewwi Askan Wi. déclaration waa Yewwi Askan Wi naan dañu bëgg a créer benn association parallèle à l'AMS maanaam mu nekk euh, association buy regrouper waa Yewwi Askan Wi Euh, ni ma ko jàngate d'abord ci constat rek depuis ñu créé AMS en 1958 ba léegi am na ay régime yu fi jaar euh, yore réew mi mais musuñoo dégg euh, création bi d'une AMS parallèle loolu seen xalaat la ay maire lañu jàpp naa ne dañoo war a toog ñun ñëpp rek ñu waxtaan trouver solution ndax mën na am ñoom li ñuy ragal ci biir AMS AMS bindoowul noonu ni ñu yàgg ragal ne AMS noonu la structuré structuré wul noonu jàpp naa ne dañoo war a toog waxtaan ndax kenn amul intérêt ñuy xaaj AMS muy ñaari association mosul am Sénégal te soo demee aussi au niveau de l'Afrique loolu aussi amu fa donc sama gis-gis mooy donc que mhm. AMS nekkul une structure politique mhm. dafa nekk une structure Euh, day regrouper maires yi. di porter seen intérêt soo xoolee AMS ni mu bindoo. parti pour représentant parti politique yëpp ñu ngi ci biir. ok mais yow wax nga ko tout à l'heure say kàddu donc am na li ñuy ragal mais yow selon vous lan la ñuy ragal au niveau de la l'AMS ba bëgg créer euh, structure parallèle boobu. non peut-être que man ñoo ñoom ñoo gën a xam lu ñu ragal que su nekkee ne dem nañu bay créer association. Mhm. Euh, dafa am lu ko waral. li ko waral loolu nag mën naa ña li ñu foog ne loolu la mën na ñàkk a nekk loolu ndax su ñu foogee ne euh, AMS dafa nekk euh, structure buy def politique maanaam di néewal doole ña nga xamante ne euh, ci opposition bi la ñu bokk loolu demewul noonu te mën naa ko firndeel ci lu gàtt dama ko mën a firndeel tey bi ñuy def AMS Aliou nekk président bi bokk mouvance présidentielle Euh, ki ko ki ci topp muy Aliou yi nekk mhm. actuellement maire plateau mhm. moom taxaw Dakar la nekkoon nekk opposition mhm. bokk doon mouvement mouvance présidentielle te moom lañ fay moom lañu fal vice président ki nekk trésorier AMS tey PDS la bokk bokkul euh, mouvance présidentielle te am na ñu bëri ñeneen ci vice président yi ñu ngi soqeekoo ci yeneen partie secretaire général bi AFP la bokk donc bu ñu foog ne AMS dafa taxawee taxewu Euh, vraiment di def ay activité politique di néewal doole ñe ñi ñëpp a ko bokk mm-hmm. AMS AFS opposi maire opposant la AMS meeru nekk parti au pouvoir li ñu li soxal AMS. mooy taxawu di défendre intérêt maire yi. waaw parce que soo xoolee aussi AMS est-ce du état bi moo koy financer aussi donc ce qui dit état ak soo xoolee ñëpp xam ni relation bi exi bi bi mës a exister au euh, au niveau du Sénégal peut-être entre opposition et pouvoir donc non état bi nekkalu fi parti politique état bi dafay nekkal pour ñëpp sénégalais yëpp ñu nekk opposition ñu nekk au pouvoir. donc ndax tali yu ñuy financé waxul ne dañuy financé ay tali pour opposants yi benn ay tali pour euh, ñu nekk parti au pouvoir donc état en tant que tel ñëpp la fi nekkal ni muy finance nag ay activités euh, ya nga xamante ne Sénégal yëpp ñoo koy bokk di ci jëfandikoo noonu la war a financer association di subventionner association ba nga xamante ne dafa boole ay maires yu bëri Euh, di def ay activités yu am importance ndax xam nga maire yi dañoo am euh, ay transfert de compétence transfert de compétence yi état bi moo leen koy jox foog ñu jàppale leen ñu nekk au pouvoir comme de l'opposition ñu ñu mën a exercer transfert de compétence yooyu AMS di leen ci gunge je pense que loolu la euh, kenn AMS mënul contre naan day contre état mbaa AS AMS c'est une structure apolitique. Okay, qui s'occupe de tous les maires. ci loolu aussi gis nañu boobu le président sortant de l'AMS muy Aliou Sall aussi def na sorti. Mhm. donc euh, di dal opposition bi par rapport ak loolu donc yow ban jàngat nga ci loolu. waaw loolu bon xam nga xalaat rek xam nga opposition opposition bi. Mhm. suñu génnee wax seen xalaat ne lii la ñu war a euh, lii moo gën ci ñoom. Mhm. dina am aussi ay maires ya nga xamante ne ñoom gisewuñu noonu. mënul am une ligne monolithique ba nga xam ne ñëpp li ñuy la euh, même chose la ñuy xalaat mhm. euh, mbaa rek ñoom ñoo yore xalaat ñeneen ñi amuñu xalaat mhm. c'est normal dans le cadre d'un débat démocratique mhm. que chacun s'exprime que chacun ñoom wax nañu lii lañu bëgg ñeneen aussi nekk ay sénégalais mën nañu wax ne loolu ñoom nii lañ ko gisee te li ma gis foofu rek li gën ci ñëpp gën ci Sénégal gën ci meeru Séné meeru Sénégal ñu bokk mouvance présidentielle mbaa ñu bokk opposition mooy toog waxtaan teg ci kanam intérêt maire yi teg ci kanam intérêt Sénégal ndax besoin wu maire APR ak besoin maire euh, Yewwi Askan Wi besoin yi benn la ci benn environnement bi la ñu nekk même attribution la ñu am au nag ñu dugg dugal AMS ou association des maires dans des combats politiques yaakaar naa ne loolu mën nañ ko ñàkk def dañuy néewal doole rek AMS te yaakaar naa ne ñoom dong du ñu mën a def euh, porter revendication ak aspiration maire yëpp ñu boole suñu boolee suñu doole suñu boolee suñu xam-xam ci lay ñuy gën a efficace. ok parce que AG prochain age bi c'est euh, bon au niveau de euh, l'association des maires du Sénégal. Mm-hmm. Euh, pour nommer le nouveau président c'est prévu au mois de mai nest mm-hmm. Mm-hmm. donc euh, mais est-ce que loolu aussi ak euh, sottiwu Yewwi Askan bi narul andi ay friction par rapport ak loolu parce que même andi problème au la au niveau de la nomination du nouveau président. non mënul euh, président bi du nomination élection lay doon. Mm-hmm. donc déclaration boobu ñu ngi koy loolu génne nañu si wax seen xalaat donc c'est dañ leen di bàyyil aussi liberté ñu exprimer seen point de vue. Mm-hmm. mais yaakaar naa ne la raison finira par euh, par par prévaloir. Mm -hmm. pourquoi puisque ci Yewwi Askan Wi. Mhm. dama ci ràññee kenn ku mel ni Babacar Khalifa Babacar Sall. Khalifa Babacar Sall mhm. yàgg ci diriger ay collectivités territoriales. Mhm. même au, au Sénégal mais aussi en Afrique. xam na ne amul dëkk ba nga xamante ne association maire bi fa nekk. dafa nekk ay tendance association des maires euh, de l'opposition ou association des maires euh, comment dirais-je du pouvoir fii ba France euh, gis nga ne loolu euh, demeewul noonu pays africains yi demeewul noonu xalifa Sall xam na bu baax collectivité territoriale yaakaar naa ne suñu waxtaanee ak ñoom trouver consensus ak ñoom dinañu mën a trouver consensus trouver en tout cas la nga xamante ne fixer benn programme dégager des instances consensuel comme ni ko AMS di mës a defaree ñëpp bokk liggéey ñëpp bokk AMS soo demee bureau AMS nga fekk fa ay maire yu bo yu jóge ci yeewu ask yeewi askan wi mhm. fekk fa ay maire yu jóge ci yeneen parti mhm. fekk fa ay maire yu jóge ci mouvance présidentielle foo naa loolu moo am solo mhm. te waxtaan bi yaakaar naa dina commencer léegi dinañu discuter waxtaan trouver ay solution ci donc avant ñuy gën a xóotal ci point boobu nga soulever soulever léegi mais yow en tant que comme que AG bi léegi mu ñëw candidat ga parce que nekkoon nga fi ma ma fàttali ko secrétaire permanent. Mhm. donc est-ce que waaw maire la mhm. euh, nekkoon euh, secrétaire permanent ou AMS xam mhm. structure bu baax. ndax maa nekkoon quand même l'exécutif au niveau euh, de de de l'association. mais porté candidature pour man defa teel. ndax dama bokk ci équipe. am ay maire yu ñuy waxtaanal. ak maire ñu ñi nga xamante ne donc ñoo yàgg liggéey. donc dama jàpp ne. Euh, porter candidature bi ça soit eh, benn équipe. Mhm. moo ko war a porter. Mhm. Euh, dañoo war a toog mhm. waxtaan suñu biir discuter xool disponibilité ku ne. xool compétence ku ne xool profil ku ne seet ka nga xamante ne yaakaar nañ ne moo gën a euh, euh, profil am moo gën a correspondre ak fonction président AMS mhm. ñu proposer ko donc du nekk candidat ma nga xamante ne damay jékki-jékki rek yëkkati sama loxo ne bëgg naa nekk candidat mhm. loolu réflexion collective lay nekk mais suñ ma waaw suñ ma tabbee euh, ne ma par exemple yow la ñu jiital mhm. pour nga nekk suñu candidat te maire yi ko wax takku boobu mën na am ma fësal sama candidature su nekkee sama collègue yi loolu lañu bëgg. ndax question bi ma la bëggoon posé sànq mooy yow en tant que tey soo demoon ba nekk candidat est-ce que pare nga pour tàllal loxo opposition mhm. jéem a xool nu ngeen di mën a liggéeyee ensemble. Euh, mhm. au niveau de l'association. Euh, loolu am na lu ma ci tontu. nekkuma président mhm. déjà je suis simple maire. dama tàllal déjà loxo xalifa Sall ak meeru yoonu askan wi avant ñuy wax affaire président Yewwi Askan Wi dama bëgg dama leen a tàllal loxo déjà lancer leen appel en tant que simple maire euh, ñoom itam ñu am ay maire dama leen di lancer appel pour ñu bokk waxtaan xam ne création association parallèle nekkul intérêt maire su nekkee dañ ko créer pour xeex régime loolu beneen xalaat la su nekkee nag dañ ko créer bugg a créer juste pour porter les intérêts des maires défendre leen loolu du nekk ni si donc déjà même sans président dama leen di dama leen di tàllal su ma nekkoon président aussi euh, AMS donc day fekk ne waxtaan nañu bi juboo yaakaar naa soo demee biir AMS di nga fa fekk ay représentants yoonu askan wi fekk fa ay représentants PDS fekk fa ay représentants lekk ndax ñun dañuy bañ toujours ñu particulariser foog ne AMS euh, ñi fa nekk rek mooy les maire du de la de la mouvance présidentielle. mais au fait pourquoi cet engouement euh, pour la présidence de l'AMS xanaa wala y a des milliards en jeu wala amul. c'est quoi le non y' a pas de milliard en jeu très loin de là puisque dama lay jox benn exemple. soo xoolee engouement bi am ci élection locale. Mhm. Euh, ci commune ex communauté rurale yi mbaa ci commune d' arrondissement yi. ñëpp xam nañu amuñu ay moyen ñëpp xam nañ ne salaire u maire bu commune rurale euh, néew na lool. motul mhm. sax cinq cent mille. te gis nga engouement bi muy suscité bi ñëpp bëgg a nekk maire. Mm-hmm. alors nekkul donc question xaalis yu crois. Mm-hmm. nekkul question moyen. Mm-hmm. ndax li ñu état bi di jox néew na lool par rapport ay milliards boobu ngay tudd. Euh, je pense que soo gisee mu am rek dafa nekk AMS dafa nekk comme une institution. Euh, ba nga xamante ne moom day am njëriñ pour maire yi chacun nag. porté un programme yaakaar ne su ma ko porter ci lay gën a mën a liggéeyal sama réew ndax la fonction du président de l'AMS euh, c'est pas une fonction euh, comment dire rémunérée donc c'est du bénévolat c'est une association le président de l'AMS n'a pas de salaire n'a pas d'indemnité spécifique mais il y a des subventions oui il est pris en charge dans ses déplacements ça c'est normal mmh. maintenant l'AMS pour ses activités, pour la location de ses bureaux, pour le paiement de son personnel et pour d'autres activités reçoit une subvention de l'État. Okay. Donc loolu mooy euh, AMS. donc euh, tout à yaa ngi koy wax say kaddu peut-être euh, maire yi peut-être nga am engouement bi ngay ci élection locale yi donc euh, peut-être pour liggéeyal seen askan mais gis nañ fi aussi yenn maire yi nga xam ne peut-être xëy seen poche lañu fi xaw a nekkal donc mën mën nañ citer aussi le cas peut-être de du maire de Sindia qui a été arrêté temps yi mm-hmm. donc pour affaire jaay suuf ak yooyu mm-hmm. donc loolu ban xalaat nga ci am waaw xalaat bi mu ci am mooy que maire yi moom peut-être que bu ñu leen singale trop ci loolu mm-hmm. ndax profession boo gis nag mhm. am na ci nga xamante ne dañuy jalgati. Mhm. même soo demee ci journaliste yi ama am na fii a ngay xamante ne aussi xaw ma ndax am na am na ñu ñuy taxé ay journalistes c'est ay journalistes alimentaires mhm. donc profession bu ne rek. yaakaar naa euh, am na peut-être ña nga xamante ni dañuy jalgati mën na am ci yu me euh, comment dirais-je mën na nekk mu am ci maire yi euh, maire Sindia bi ngay wax on l'a arrêté mais je pense qu'on l'a pas condamné te tant qu'on l'a pas condamné mënuñu firndeel ne il a commis une faute donc suñ ko jugee nag puisque am na comment dirais euh, sur le plan juridique am na euh, quand même présomption d'innocence donc mënuñu jàpp ne effectivement que il est coupable tant qu'il n'a pas été jugé mais li ma ci tontu rek de manière générale su amee maire yuy jalgati mhm. mais man xaw ma ndax am na en tout cas même soo amee tam jàpp naa ne yeneen profession aussi. Hmm. am na ñi nga xamante dañuy jàkkale loolu du nekk une situation propre au maire du Sénégal. ok donc euh, toujours si Yewwi Askan Wi aussi donc euh, ñu ñëwaat aussi par rapport ak forum moo de l'eau. Mm donc gis nañu Barthélémy Diaz euh, il a fait une sortie hmm. donc mm -hmm. peut-être il. en tant que frustré parce que mhm. gis nañu il a été relégué au second plan mhm. par rapport à ce forum qui est si important peut-être mhm. donc pour la ville de Dakar moom en tant que maire en tant que nouveau maire aussi mais en tant que maire de l'opposition donc euh, gis na ni gars joxuñu ko cër bi ñu ko waroon jox donc est-ce que loolu aussi c'est pas une façon de le combattre politiquement donc euh, en tant que euh, membre de l'opposition d'accord bon question boobu pour dire la vérité je pas toutes les informations relatives à ce problème te nit ki nag sooy prononcé wu na nga prononcé wu loo xam mais am naa ci benn njàngat forum de l'eau bañ koy préparer ëpp na at donc yàgg na plus d'un naa ñu ngi koy préparer mettre en place un président mettre en place ay commission yi koy organiser mhm. temps boobu xamuñu woon peut-être que Barthélemy Diaz dina nekk maire donc mënuñu def programme bi structuration bi cérémonie bi yëpp rek viser ko spécifiquement pour Barthélémy Diaz en tant que tel monsieur le maire Barthélémy Diaz donc yaakaaruma mu mën a tëree mu mu mën a nekk noonu mais comme maire de Dakar la je pense que am na ay cër yu mu ci war a am euh, su ko ci waree am loolu warul nekk jafe-jafe pour que les organisateurs mën koo intégré mais comme ni ma la ko waxee rek euh, mënuma cee sori ndax wax dëgg yàlla amaguma toutes les informations relatives à cette euh, situation que vous venez d'évoquer bi koy évoquer léegi. donc euh, ñu dugg ci beneen sujet mooy euh, jamono ji bientôt ñu ngi assister élection législative ñu ngi mhm. waaj a ñëw. Mhm. donc euh, gis nañu aussi depuis un moment même le président Macky Sall génn par rapport ak liste parallèle yi. Mhm. di wax ak membre de mu mouvance présidentielle waa benn Bokk Yaakaar. donc qu'il est hors de question que cette fois-ci mu am ay liste parallèle muy président Macky Sall mii Mimi ak ñeneen ak ñeneen di nañ di ci wax. donc yow lan nga ci xalaat. waaw xam nga comme da nga maa invité nag da nga maa invité woon nag en tant que maire. Mm-hmm. invité ma nag en tant que vraiment euh, maire. Euh, léegi nag xam naa ne damay joxe sama point de vue rek en tant ah, yow da ma bëgg de questions plus politiques alors te naru ma woon a fësal peut-être appartenance boobu bu baax mm-hmm. mais je pense que il est tout à fait normal mm-hmm. pour tout parti politique qui participe à l'élection nga def sa analyse élection locale yi nga génn nga tiire ci ay conséquences recommander ci sa njoboot ñi nga xamante ne yow lañuy àndal nañu nekk benn loolu je pense que ça amuñu lenn luñ ci mën a wax appeler ces forces à l'unité amul parti bu bëgg dem aux élections législatives que ça soit un parti du pouvoir ou bien un parti de l'opposition buy bëgg dem en en rang dispersé donc c'est tout à fait normal à mon avis que le président Macky en tant que patron donc en tant que président de la de la coalition Benno Bokk Yaakaar def ay appel jël ay initiative pour que sa pour que sa coalition puisse gagner les prochaines élections et pour appeler donc à l'unité euh, et éviter les listes parallèles pour que ñu mën a am ay résultats yu baax. ok parce que pour éviter un peu aussi la cohabitation au niveau de l'Assemblée nationale parce que avec euh, élection locale yi ñu génn donc. Euh, ak résultats yi ni mu demee surtout au niveau de Dakar donc est-ce que c'est pas à cause de ça peut-être moo tax ñu bëgg oui je pense que comme euh, Aminata Touré ni mu ko doon waxee rek madame le premier ministre xam nga résultat élection moom li ñu koy jàngate benn la hmm. nga wax ko ci olof nga wax ko ci pulaar nga wax ko ci nga nekk à gauche du centre ay chiffres la hmm. donc su nekkoon élection présidentielle Macky Sall la coalition présidentielle passe au premier tour hmm. ndax nag Euh, soo ko jëlee ci suffrage nga xamante ne ñun maîtriser nañ ko euh, nga jàpp ko ci euh, nombre du collectivité locales yi ñu gagné ñun dañoo na wax ne élection locale élection législative su naree ñaaw yàlla na mel ni élection locale yi ñu génne ndax résultat yi ñu fi génne dañ ci am résultat ndam bu rëy donc nag dakaar mooy Dakar c'est pas la première fois que l'opposition Euh, gagne à Dakar depuis depuis le temps du parti social parti socialiste euh, c'est euh, le président Ablaye Wade a mmh. souvent gagné Dakar en tant que parti de l'opposition mm-hmm. et donc et on n'a pas perdu en tout cas de grandes communes je pense que résultat yu baax la coalition Benno Bokk Yaakaar am. donc pour donc. Euh, mooy poste premier ministre. Mhm. donc boobu léegi président Macky Sall annoncé woon na ko. donc ñu ngi doon yaakaar sax jamono ji avant législative yi. Mhm. Euh, ñu mhm. mais gis nañu analyse politique yu bëri ñu ngi naan dafay xaw a ragal nommé euh, premier ministre day ragal aussi réaménager le gouvernement. par peur de représailles ak élection législative yi ñu donc yow ban analyse nga si def. waaw analyse bi ma si am mooy analyse républicaine bi rek. premier président de la république mu décidé rétablir premier ministre mu koy jàppale. ci euh, ci liggéey bi muy def mhm. moom moo ko décidé moom la concerné mhm. ñu def ko ci constitution bi agenda bi mu koy defee amul contrainte juridique buy wax président ne euh, ci diir bii nga war a euh, fal nga war a tànn premier ministre mhm. amul benn contrainte juridique bu koy imposer comme amul contrainte juridique moom mooy def appréciation boppam en fonction de son agenda et en fonction de ses préoccupations et de comme moom mooy diriger dëkk bi je pense que nañ ko bàyyi moom ma nga xamante ne moom la yoon jox sañ-sañ bi mu xool le moment le plus propice pour créer pour nommer son premier ministre ndax ku ci wax leneen moom da wax sa xalaat mais kenn xamul li tax président nommé ko mais nag am na sañ-sañ yoon bi may na ko ko. mu xool ba jamono bi nga xamante ne mu gën a approprié mu nomi ko je pense que nañ ko euh, nañ ko ko baal quand moom mun na nañ ko nañ nañ ko ko autoriser nañ ko ko permettre reconnaître ko ok mm donc euh, ñu fàttali rek euh, euh, ñun nous avons comme Omar Ba. Mhm. monsieur le maire Omar Ba. Euh, mhm. de la commune de Ndiobé dans le de Fatick nekkoon aussi secrétaire permanent de l' association des maires du Sénégal donc ñu ngi si njeexantal émission bi monsieur le maire donc ñu bàyyi la nga tàggatoo. d' accord la bu baax et li may jeexal rek mooy ma lancer un appel à tous les maires du Sénégal et je félicite d' abord tous les maires du Sénégal qu'ils de la euh, mouvance présidentielle ou bien qu'ils soient de l'opposition. Ils sont élus, je les félicite. Deuxième sous je les appelle à l'unité. À la création, ñu créer benn association ba nga xamante ne day regrouper tous les maires, quelle que soit leur appartenance politique. ñu def de l'avant la défense des intérêts des maires bañ a créer association ba nga xamante ne peut-être dafa jóg pour xeex politique. mais ñu def association ba nga xamante ne li ko li ko ñor mooy avancé loo en tout cas maire yi yokk seen sañ-sañ renforcer leen seen capacité donc te loolu mën nañ koo bokk mën nañ ko bokk liggéey ndax comme ni ma ko waxee ci njëlbeen besoin de renforcement d'un maire APR le besoin de capacitation d'un maire APR sont généralement les mêmes besoins qu'un autre maire kon bëgg-bëgg bi benn la ñoo am même attribution nekk ci même environnement donc war nañoo mën a bokk liggéey ndax nag su weesoo su su su caaxaan passé ba caaxaan passé ñun ñëpp ay sénégalais lañu. ñu ngi lay jaajëfal monsieur ñu ngi lay jaajëfal bu baax merci beaucoup.